journaliste ñoo ngi lay wax bonne heureuse année di la nuyu bàyyi la nga nuyoog internet yi lay seetaan sur Dakaractu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki Sénégal di leen ndokkeel ci at mu bees mi di nuyu di ziar di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu soppe suñu xarit sëriñ Babacar Sy Mahamadul Mansour xalif général de la Tijaniya di ko ndokkal ci at mu mi

duut na fa baaraama ah donc muy loo xam nii nag muy wax ni bokk ci coow li xam la xew a ko gën te moom xam na la xew kon tabaarakallaahu liñ ci mën a jàngat mooy rafet nañ ko te dinañ ko ci ànd ak moom jàppale ko ci ñaanal ko ci yàlla. Hmm. ci foo xam ne réew mi mu ngi toll ci ay tension euh, mën nañu tension c'est des tensions sociales ndax gis nañu waa aar li ñu bokk ak ñoo lànk ñoo bañ. ajjuma bu nekk ñu génn ci mbedd mi ba ci ñenn ci ñoom ñu jàpp dugal leen ci kaso bi ci mel ni ay ñoom Guy Marius ak ñeneen ñu mel ñoom. waaw damay ñaan rek ñu dal ndax mbir mi coow yoru ko baqara benn nu jëmti woon naa si yàlla waxu ci ku wax ma fay la ku jëf ma fay la man amila saalihan fali nafsi kon buñ ne dañoo yokk tey li war a coow li mooy électricité bi ñu yokk. courant bi ñok Sénégal minut minutul yok xëy loolu la waral coow li waaye gis amna sabab sabab bi président Macky Sall léral nako. ko def na ans et demi musul yok donc bu démé ba yok rek jamono ko laaj. ah man nak du luma neex ñuy manifesta manifestation boo xam ni xëy na teguñu ko ci yoon ndax nit ki doo ko nangul lu lumu lu mu moom ko bañal lu momul may ñaan rek ñi sekk ñu waxtane ko waxtane bu may lan li tax ñu yokku leral président leral nako barki ci discours nation bi ah mu jël pétrole bi jël gaz bi deng ko ko xamni tabarakallah am nañ ci mom yaakaar muy Mouhamadou Makhtar Cissé c'est un homme de défi bari na lu muy dugg yalla diko defal ndam may wax rek nañu dal li ci kanam rewli li te inshallah rabbi ah li xew ci yenen rew yi bu bu pétrole amé wala gaz ñun ñoko ñun ñoo mom suñu réew mi Sénégal té wax né né léeg-léeg ñu né mag ñi wa ñaan nañ bayyi fi waaye ñaan dañ koy dimbalé moy lan moy fessé né fessé ba and nek ben bu té ba soti ku ci nek lay sa cër nga gis sa bop président wolté dialogue ku ne xam ni barki dem mooy Ndiaye Masale ku jiran jibol nañ ko papa Abdoulaye Wade waye ñu gis dialogue bi mujjee woote wa PDS né bokku na. waaw xam nga batay rek mom léral nako ci waxtaan. président Ablaye Wade ñëw na wala ñëwul taxul ñoom ñaar juboo nañu wala juboo nañu juboo nañu ndax dama wax ne kilifa gi moo ñaan mu siin si dem muy mu si si mu tax a Mbakke tabarakallah di ko ñaanal yàlla doole ko kàttan jubóo leen ñoom ñaar ànd nañu nekk benn président Macky Sall gunge na ko ba këram muy lu rafet président Ablaye Wade ñëw ba ci pale bi muy lu rafet Macky Sall président Macky Sall ne dina demaat seeti ko muy lu gën a rafet. kon tabarakallaahu nañ ci dal te am ci yaakaar ni rek dina sotti ah ñeneen ñi nga xamante tamit woote na joloog def naa ne ñëpp daje nañu keroog xëy na woote nag ñëpp wuyu la yàlla mi bind doomu aadama sax mënu ko am ci njabootam yonent bi salaa mi tax ñu bind ñu ñëpp am nañu ne gëmul yonent bi salaa salaam ni yonent bi amul yàlla amul kon président bu wootee ala kulli amul maqaama yi ñëpp wuyu ko waaye nañ ñi nga xam ne wuyu nañu nañu ñaan àndandoo fas yéene ànd waxtaan nekk benn ba njëriñu ëllëg lay njëriñu Sénégal ëllëg ñëpp ñu mën koo bokkandoo ndax nañ ko waxtaanee boo gis nañ ko. ne nañ ko def moo gën nañ ko def ba gis waxtaanee. waaw mi ngi xaar xam nga waaw doom ji màgg la doom ji màgg il faut mu am coow waaw parti bi màgg la dafa juddu rek dafa judd rek tekki loolu juddu tekki foo ko fekk il faut mu am coow mën noonu laa gisee donc wax na ko barki demb ñenn ñi xëy na mer nañu is gis gisaguñ ko gisatuñ ko ñenn ñi mer nañu li tax déggatuñ ko waaye nag président dina toll foo xam ni nag dëgg-dëgg dootul jaadooti sax muy ñeex a gis ndax yan bee diis. mais coono ci parti bi ñëpp jàppoon ni wàllu ndono la euh, moom ba tey waxu ci wax bu leer ci ñaar lay yem pour mën a am ndono wala def benn troisième xam nga ndon ndono amu ci président réew mee ko tànn. Sénégalais yi ñoo ko tànn nekk ko yow la mu liggéey fi juróom-ñaari at def lu mu teg suñu bët ñu ne ko yowaat la man mi wax yow nag monsieur prend mes man pareeguma ak moom. pareeguma ak moom mooy lan sëñ non pareeguma ak président Macky da bëgg da nga bokk ci mu man daal dépasse naa sax troisième mandat man sama diggante ak président Macky Sall ndax lu weddi lu ne fànn kenn ko jeex commencé na fi jox nañu ndekki ndekki li neex na nag muy sept ans yi passé te nee na dinañ jox añ añ bi ci lañ toll nii ñu ngi fu ne ba léegi ñun ñu ngi savouré suñu victoire u 2019. sëñ Aliou Sy nekk un infatigable du président de la République. malgré seen maigres moyens. waaw di dat lu ne. te dafa mel ni président ni mu ko waroon jàppe jàppe par sëriñ bi gisuñu euh, ñu boole ko ci benn poste de responsabilité wala dara ndax gis nañ jàmm gi bu yàggul sëñ Mbaye Sy Mansour téye ci sa loxo téye ci loxoom ne ko kii kat sa élément la. waaye bo ba tey bi amul dara lu waa euh, buur ba ma laajee lo na ci kontaan ndax président Macky Sall dañ ko jàppale ci kaw ndigal ndigal nag boo koy do doo xaar ku la dédommagé ndax ci tarbiya la ñu nekk tarbiya suñu tarbiya ñun ci nit ñi mooy ci jàppale président Macky Sall dem ceeg moom ba jeex xaaruñu ñu fal ñu xaaruñu ñu jox ñu cër xaaruñu ñu jox ñu teraanga moom li ñu ëpp importance moom président Macky Sall xam na ne ñu ngi koy jàppale tax xam nañu cofeelam ci ñun ci moom. waaw mais ñu topp sa sama ginnaaw ay ndaw aussi tamit ba waaw metti na sax metti na waaye nag tabaraka la buur nañ jël lépp teg ci loxo yàlla lu tëë xam dafa yàggul te lépp dina ñëw. lan mooy tëë xam président bàyyi nañu xel bàyyi xel bi waral mooy jox nañ ko suñu lépp. te ñun ak moom bu ma sax ne ba 2029. Wa metti na wa metti na ça il faut le dire metti na mais nak nañuy toujours rek jiital yalla jëfee ndigal ba li ñu bëgg dañ ko am amul kenn kuy jëfee ndigal di am contraire. ndigal daal mooy wa ndigal dal moy dal ñun dal ñu ci président Macky Sall dañuy wax ne at mi du 2020 dama koy fas yéene jàppale rek muy 20 sur 20 muy 2020 incha allah. sëñ bi lan ngay wax ñi lay seetaan loo leen tàggoo surtout ci ak waa di gën a rek euh, ñaan ñaan jàppalewaat président di ko ñaanal yàlla année bii di année ndaw ñi mu bàyyi xel ndaw ñi waaw ndax moom ndaw la ku su indépendance su réew ndaw nga donc moom ndaw la te jamonoy ndaw la ñu toll mën naa ne wax na sax tey mu ma doon imaginer yàlla yàlla tey ndaw la mm-hmm. donc mu bàyyi xel ndaw ñi bàyyi xel employé xalé yi donté mi ngi ci nak mi ngi ci ndax barki def na logements cent logements yi bi ko biñ ko lancement bi cinq jours après def na mille cent mille logements inscrits yo xamni inscrire nañ mom nak gana def loi logement kër ma dëkk dama ko louer te bis buma ma borom gi dina loolu luñ ci président mënu ci dara président du dugg mooy porte à porte laaj looy fay lim mën def na lancement def na lancement jaala ko ci ministre ah, ah, Abdou Abdou Karim Fofana. ah loolu nak bu kii moom moo jël responsabilité ki am sal salaire ki am sal waaye ki am non ki am salaire 50 ki am salaire 150000 man nga am ci kër yi man nga am ci logement yi. ki am salaire 200000 man nga am ci logement yi mais xel xalaatoon nga am salaire 150000 di ci am kër. loolu nit musu su koon est-ce que dina jaar yoon. dina en kay wa

nit nak da fekk na rek Sénégal yi mën nonu jité ko yombul bo né bërët ñu né ma ngay dem da bu ñu xam fo dem du ag ndolo waral tabarakallah ah ñu ci yaakaar nañ ci am yaakaar am ci yaqeen am ci nak ñot prophète né li dina réussir. man dal maa ngi ci makki maa ngi ci président makki tay ba 2024 lu mu laaj après 2024 nañ ko def. Ah, mais mais pourquoi ba 2024 sori na ñun daal nañ waaw ñun daal ñu ngi ci man daal maa ngi président Macky Sall 20 sur 20 bi ma la wax nii mooy 2020 bi laa ko fas yéene bindal à part day le premier janvier 2021 kon nag ñu ngi nuyu ñëpp du ndokkeel ñëpp di ñaanal waa réew nañu dal ànd ak dal ànd ak teey te yaakaar ne kii li mu indi bërki démb ci euh, point de presse bi invité ñëpp ku ne wax sa soxla ci ñoo xam ni ku ne xam nga ne àndu ñoo moom ñi ànd ak ñoom ñi moom ku ne wax na ah nit ki nag ci waxam nga ko mën a jëfee ñu am yaakaar ne ci kàttanu yàlla li mu yéene ci réew mi bëgg ko ci réew mi yàlla dina ko doxal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu